fekk takkusaan gi sawar na ànd ak gerte caaf sawar ut palaatu weer teg si beñe bi baa fataaya bi jox gan ñi ñuy sant yi sawar ñële di màggal di jurus kaamil yi sawar ñële di màggal yëkkati xasida yi sawar ñii wala fal di tagg say xibamba sawar bàyyi faali saxo si kartur yàlla sawar ñee féetoo bernde ya sawar ngir ku fay gan ñu der la bernde la bernde nag ci la mboolem xeeti plan sawar yëpp am na fi waaye suwaasir loo si xër xarit bat bi sawar café Touba Douté sawar am na nes café sawar si xew café ak meew mbaa meewum kese sawar mburum fëriñ sawar mburum baguette mbaa tapalapa mat leen pain wala cake yaay choisir naaxu sow am na lëkkëri ceebu nga teg ceebu ganaar yaay choisir am na misi am na touffé am na it salade vermicelle le petit pois serré yaay choisir am na xëti am na copine am na ay naat dañ koy saaf tegal gan ñi ñiy choisir faslun fii bernde bernde nag ci la café Touba ki mee sexa jute ji lépp teranga la beñëb fëriñ ak mburu mbaa sax moom beñëb dugub fekk ki mat leen dañuy servir ci teranga yi teebu siyeer sabar teebu ngot sabar cerey taalaale ji salaat suñ orne dañuy service lépp teraanga la sabar ñett ak bool sabar ñeent ak bool sabar dabi màggal du xat du am seeyu du am ñiit teraanga yee doy tufe couscous mbaam macarona bool yaa ngay tege weer seen ba mbaa petit pois lépp teraanga la sabar banaana ak orange raisin xeeti bernde la soo piir kom pomme ji day teew ndax teraanga la musuwaar asata kir daam ak sa bernde la ataa yaag si ngoom jën ak togg sax lépp teraanga la ngeen am cant bëgg jàppale ni Ndiaye Pro barab bii di barabu communication di ngeen si ànd ak Khadim Ndiaye